ci ay atami néew la boyal ay doomam ñuy gàmmu ci kanamam moom nag passé na at yooyu suñ ñëwee jox ko ñun dañoo wóor ne li ñuy bëgg a def moom moo ñu ko dàq fuuf doomi Cheikh Ibrahima Niass la moo fi nekkut sax ëllëg tukki bu ngeen jàpp ne bu ngeen demee ci moom lépp lu ma mën a def rek dana def lu ko ëpp ndax loolu mooy mission boole naa leen nag moom xam leen ko bu baax yéen ndaw ñi su ngeen ñëwee tey Medina su ma fa nekkut dem leen ci kër sëñ Màkki laajte ko ziyaara ko kóllëre googu damaa bëgg yéen Cheikh Tidiane ak yéen xale yi ak yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci daayira bi ngeen faslante kook moom faslante koog ñi nga xam ne ñoo fi nekk bàyilaa ji alquran bi nga xam ne moo yore woon tabaxi jumaa ji ba ñuy jugee Medina suñ kër lañ ko bàyyi dafa yore daara ju mag moo tax mu gëj ci dëkk bi waaye wax dëgg yàlla seede na seede yu rafet ci mafaal ñaanal na ko yàlla wax naa ko ne ko taxaw ba mafaal taxawoon boroom dëkk bii muy juuf foofu la taxaw maa ngi sàkku ci yow nga ñaanal ko gannaaw niti alquran yéen tamit maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla ñu ngi gërëm mbooleem kilifa yi fi teew suñ limee denañ juum am na ñoo xam ne nag bëgguñ ñi tudd seen tur waaye ñi ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal leen yàlla yàlla jotal leen seen càkkutéef ñoom ñëpp ndax am na ci koo xam ne bëggun ma tudd turam ñëw na ba Medina dama sëriñ bi lépp looy def ca dëkk ba maa ngi ci ànd ak yow sët kër gi fekkee commencé woo ko danaa ci def tonni ciment te danaa ommat beneen jaamu yàlla boo xam ne dana ci def tonni bëgguma sax kenn xam ne man maa def loolu ndax bëgg naa nga tabax sa kër gi foofu boo ñëwatee wàcc fa te kook jaamu yàlla bu nëbbu ci suñ biir la mi ngi fii nii ngeen ñaanal ko yàlla maa ngi sàkku ci yéen ndaw la waaye maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla yàlla guddal fanam ndax du toog ñaari fan mukk te yónnee wu ma message ba Mauritanie mu ma yónnee message naka sa yaay nan la def bi sama conseil la daf may digal lu baax saa yu ne kon maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla ndax moo ma wax ne ma sama tur jaram nga koy tudd ñaanal ma rek moo gën fuuf ndax man ndaw laa maa ngi ci yoon bi te li may sàkku ci yow mooy nga ñaanal kon maa ngi koy sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla yàlla jotal ko mbooleem càkkuteefam ci zahir ak ci baatin maa ngi gërëm tamit jigéen ñi muy aji kura mi nga xam ne moo jiite jigéen ñi ci taxawaayam bu dëggu bañ fi duggee ba léegi nii mu mel la mel jigéen ñi niñ farloo dafa ëpp su ñëwee gàmm Medina duñ sonn duñ tàyyi duñ xam sax ban daayira lañ leen boole dañuy jàpp daayira yëpp daf ko benn daayira di sonn guddeeg bëccëg ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla barkeel seen njaboot kon léegi gannaaw guddi gi sori na dañuy jox boroom gàmmu gi mu dugg ci gàmm gi ñun ñëpp nañ déglu ànd ak teey ak dal Baye daf daan wax mu ne fu ñuy nettalee yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam yonent bi mu ngi suñ biir kon na ngeen bëri lu ngeen di jàng salaatul faatihi ak di déglu li nga xam ne sëriñ bi moom lay wax ci melowkaani yonent bi ak jikkoom yi ñi mën cee royee ñun baax ndax doomu aadama loolu rek mooy itteem kon nañ góor góorlu bu baax li nga xam ne moo ñu fi tax a teew muy yonent bi sallallahu alayhi sallam ñi teewlu ko suñuy jëmm teewlu ko ak suñu roxo yal nañu yàlla dimbale yàlla may ñu dégg ak top lépp luñ fi jëlé yàlla nañ ko jëriño yàlla nañ yàlla may nopp yo xamne dañ mëna dégglo sëriñ bi te mën ko top wa axiru da'wana an rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullah ko toogaayam fi imam la ci adina bi yëpp ku nekk gis na liggéey bi mu liggéey ci ak Europe ak ci Amérique fu nekk ci adina bi kon nak fi ci tànn baar su fekkee ne yàlla tànnal na leen ko te mu tudd Moustapha Moustapha mooy ki nga xam ne kiñ tànn إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعدها من بعد yàlla wax na ne famille yooyu nga xam ne mooy ñooñ Moussa ak Ibrahim yëpp mu ne ñu mel ni ñoom rek ñooy génnee ci ñoom kon nag su fekkee ne tànneef génnee na ci ñoom yàlla def ko mu tudd tànneef muy Mouhamadul Moustapha yàlla tànnal ko dëkk bii nga xam ne mooy tànn baar tànn baar mooy tànn al baar mooy yàlla yàlla tànnal leen ki nga xam ne mooy Moustapha mi nga xam ne mooy soppe yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel waa dëkk bi ci xéewal gu màgg gi ci guddi gu tedd gi nga xam ne amut sikk ne guddi gu yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla moo ñu ko jagleel fii ci ci dëkk bi suuf si yaatu na jamono ji xat na waaye yan ñun la yàlla def ñu am jagle gi nga xam ne bés bu toll nii bésab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci dëkk bi yàlla tànnal ñu ko kon nag ñu ngi gërëm Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne lépp lu mu wax ci ñun ci moom la nekk ni ma ko gisee rek mooy examen boo xam ne daf ñuy jàngal rek pour ñuy aw ci ay tànkam ndax gis nañ liggéey mi nga xam ne bokk na ci seti Mawlana Cheikh Ibrahim yi nga xam ne tànneef lañ ci pee Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne royteef lañ ci àddina bi lépp amul benn jéego yi muy def loolu jéego yi nga xam ne moom la maamam doon def te loolu gis nañ ko ci àddina bi fu nekk tabaxal na taxaw na taxawal na ay zaawiya ci oro dugal nañu bëri ci lislaam te fépp fu mu taxaw rek ñi xamutoon maamam danañ ko xam ñu bëggutoon lislaam danañ ko bëgg kon nag waa dëkk bi ñu ngi leen wax ne yàlla bëgg na leen dëkk bii nga xam ne ñu ko tuddee taawi Mawlana Cheikh Ibrahim kooku ñu ko tuddee moo bàyyi Mouhamadul Moustapha Cheikh Ahmadou mi nga xam ne fa Ahmadou Sadi fa fa mu loolu la bàyyi wax kooku nag loolu yëpp di ay xéewal yoo xam ne yàlla defal na ko kon maa ngi leen ndokkeel ci loolu ñu ngi sant di wax ne bàyyi ngi tagg yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sang mbindeef yi kuy tagg yonent bi fan ngay dalee bàyyi nee na bu sooy nee na soo tàmbalee rek bu yeboo nga bàyyi ndax foo soo tàmbalee rek li nga doon wax wax ji jot na mën a wax lu ëpp loolu kon nag lo mënta def lépp tamit lu tee nga def lenn li rek kon ñi barke loolu li nga xam ne mooy cosaan li nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim moom la nàmpal nàmpatal képp ku jokk ci mom ngir bëgg gi bëgg yonent bi salaay salaam di tagg yonent bi di jàngale ay jàngaleem di firi alquran di tasaare diine lislaam fu nekk ci àddina bi nee na taqaazabahu ajwaaw sharqan wa maghriban yubinul huda fi'lan wa xaala mu ne jaww yi ñu ngi may sànni ndeyjoor ak càmmooñ penkoor xarfu mu ne nax lan ngir may bidal nit ñi ci sama wax ak ci sama jëf muy muy kan muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku nag mooy maami cheikh muhammadul am mi nga xam ne roy maamam moo tax mu ñëw fii ci dëkk bi nga xam ne bàyyi مولانا الشيخ ابراهيم موم دا فا نيرو ترون دورام ديغا خامني مونغ سي القران ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ابن ابراهيم موغا خامني ناسيون لا دو سنغال ريك دو غامبي دو دو نيجيريان واي ناسيون لا امه لا كوكوغا خامني دا فا راغال يالا تو ولم يكن من المشركين مست بوكال يالا كو كوميل نونو نا ورنا جونيو كيب كو نيك سي ادنا بي موتاخ فيب فو lépp lu lu bokk ci moom war na faa nekk nekk seen wasila ci pee Mawlana Cheikh Ibrahim loolu moo tax Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëw fii waaye fu mu mënoon a dem rek dana fekk ne fu mu dem rek dana fekk ne ku nekk soxla na ko kon nag su fekkee ne moom la yàlla tànnal fii loolu tamit beneen xéewal la waaye ngi tagg yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam di wax ne nuuruhu awalul wujudi wujudan wa aslul usuli wal anjaali nuuru leer googu noonu mooy cosaani cosaan yi mooy bàyyi bàyyi mooy maami maami yi mooy cosaan yi lépp lu yàlla bind yàlla moo fi newoon ba fi dara newut bu fi lépp jógee yàlla moo fi des yàlla moomu di suñ borom moom moo wax loolu ba loolu amee nag Seydina Ali teg na ci ay baat ne kaan allahu la shay'a ma'ahu wala anama alayhi ma alayhi kaan mu ne yàlla rek moo fi nekkoon ba fi dara newut Seydina Ali teg ci ne ba léegi dara desul dara nekk fi lu dul moom lu dul yàlla kooku nag ba xamee ne loolu am na te tajalli bu njëkk bi mooy jëmm yàlla ji yàlla nekk ci doyab doyab boo xam ne dara feeñu dara nekk fi lu dul moom ba nga xamee ne dem na ba bëgg ba bëgg ay mbindeef yoo xam ne dafay feeñ feeñ waayam bi mu fàkk ci leeram gi def ko muy xàkkatu muhammadiya xàkkatu muhammadiya boobu mooy cosaan yi cosaan yi mooy bàyyi bàyyi mooy maami maami ndax mooy matière première bi nga xam ne lépp lu yàlla bind mu ko jëlee ci xàkkatu muhammadiya kooku nag mooy cosaan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu mooy jommal falasifa yi ak sufiyanke yi ak nit ñi borom xel yi yu sell yi moo tax tuddee nañ ko xëynulaa tuddee nañ ko malakul kurubiya tuddee nañ ko xel mu njëkk mi tuddee nañ ko xel mu sell waaye li nga xam ne mooy cosaanam dëgg-dëgg te mooy turam mooy xaqiqatu muhammadiya loolu Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko jàngal nit ñi loolu kooku mu leer nuur googu leer googu nag mom la baye di wax ne nuuruhu moy leer googu noonu awalul wujudi moy ciosani ciosani yi wa aslul usuli wal anjari mom moy baye baye moy mami mami ba nga xamé ne yàlla mo fi néwon ba fi dara néw mu fàq ci leeram gi daf ko moy hakati muhammadiyya tajalli bu ñëk ba feñu waye tajalli ñaaral bi nak yonentu feñ feñ waye ab yàlla utu yàlla ci bépp melo ci tur yeeg melo yek jëf yek lépp bàyyiwul dara lu dul kii mooy yàlla kii mooy yonent bi salaay salaam ba nga xamee ne loolu am na nag ba yàlla demee ba nga xam ne nag bëgg na bind mbindaakoon yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf aadama la njëkk a bind ba mu bindee aadama fàq ci leer ci ci nda ci fàll ak càmmoñam def bind ci xawaa ba nga xamee ne loolu am na loolu kenn xamut ñaata jamono ak ñaata bés ak ñaata waxtu waaye boobu jamono amut bés amut waaye dañ daan nattale rek waaye leer googu nga xam ne mooy xakkatu muhammad yee ñaata junne yi at yoo xam ne nekk na di sabal boromam ba nga xam ne dara neew fi lu yàlla gannaaw gi nag la nekk feeñ waaye yàlla tajalli mooy lan ñu ne mojjaa tajalli mooy lan ñu ne tajalli mooy seetu mooy jëmm ju feeñu boppam soo taxawee ci seetu dafay mel ni ñaar la te yow la soo yëngatoo mu yëngatu soo soo soo soo dalee mu dal mu mel ni ñaar fi nekk fekk benn jëmm rek moo fi nekk kooku mooy tëjali bi nga xam ne mooy tëjali boobu ba tëjali boobu amee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko yàlla wanee melow yi nga xam ne melow taar dayob taar ak day ak mat nga xamee ne yàlla sax wax na yonent bi wax na ci xadis ne inna allah xalaqa aadama ala suratihi yàlla bind na aadama ci meloom muy melow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bopp bi miim la mbagg mi xaadam del la ndigg yi miim ndigg li miim la tànk yi di del mu mu uutu yàlla ci bépp melo nag ba nga xamee ne loolu am na nag ba yàlla bindee yonent bi salaay salaam ba wan ko melo bi nga xam ne moom la ko moom la ko bind dayab taar muy dayab mat ba yonentu amee kersa kersa googu mu am ba ñaq ñaq googu ci la yàlla bind géej gi géej gi moo tax moo njëkk ci li yàlla bind ci moo ngi jógee ca cosaanab tëjal yi bu njëkk ba moo tax yàlla sax wax na ci alquran ne wa kaana arshuhu alal maayi am na jamono boo xam ne aras yàlla gi sax moom ci kaw ndox mi ndax benn mbindeef amagul lu dul géej gi nga xam ne mu ngi jóge ci ñàkk ak yonent yàlla muhammad salaay salaam ba loolu amee rek yàlla daal di bind ngelaw ngelaw loolu ëf géej gi géej gi def ay purit purit moomu yàlla walal wowal ko mu def ay xeer xeer yooyu yàlla fenkale ko mu génnee saxaat saxaat soosu mu ne mu bind ci asamaan ba mu ba mu ko ba ko déndee muy juróom-ñaari asamaan mu def ko muy juróom-ñaari suuf ba loolu amee rek moo tax yaa ñuy wax ne sooy ganale gan da ngay defar taabal def lépp lu ci ajo teg bernde yëpp ba mu tege nga doog a dem jëli ki nga xam ne moom ngay ganale ba nga xamee ne yàlla mi ngi pareel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ko jaaree ci aadama ba mu bindee àddina bi bésab dibéer mooy bésab dimaas ci la yàlla bind bind suuf si saxal garab yi bind biddiw yi bésab altine yàlla bind weer wi digal ko muy dox bisab talaata yàlla bind bind bindi géej yi bind géej yi ak géej yi géej yi ak dex yi bisab àllarba mu bind ndox géej yi ak bés dex yi mu digal leen ñi naan muy muy bésab naan bésab al alxamis yàlla bind aljanna bind safara moo tax muy bésab ñaan yàlla bésab ajjuma nag yàlla bind aadama bind xawaa may ko ko muy bésab sëy noonu la yàlla dendee suuf si nag ngir préparer xàkkatum leer ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga xamee ne leer ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci aadama fekk aadama moom moom rek moo fi nekkoon yàlla dindi ci fàll ak càmmoñam bind ci xawaa loolu amee rek aadama am na ñaar fukki biir moo xawaa bu njëkk fekk mbindeef yi bëreeguñ seex bi doom ji nekk ci biir bi mooy seeg seex ba nekk ci biir bële boobu mbindeef yi bëreeguñ boo xam ne yàlla mën naa mën naa amal mbindeef yi ba ñu yaatu ba loolu amee rek muy def loolu ba nga xam ne aadama jur na ñaar fukki biir ba ci mujj rek mu daal di jur jur siisu siisu nag moom mooy ki nga xam ne moom rek moo ñëw nekk moom kenn bàyyi mu ne leer ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bëggul mu rëj rëjloog dara moo tax siisu moom ñëw rek di kenn moom kenn ba loolu amee rek aadama nag ba nga xamee ne leer gaa ngi ci moom suy dox rek malaaka yi di dox topp ci gannaawam mu ne moom mbindeef yi topp sama gannaaw lu ñu may toppee mu ne ko leer ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax yàlla bind la moo tax yàlla bind lépp lu mu moom la ñuy xool ci yow rek moo tax ñi lay topp mu ne ko defal ma ko ci sama loxo ndeyjoor defal ma ko ci sama sama baaraam ab bi mu def ko ci ndax ñi féetee ma kanam moo gën ñi may féetee gannaaw ñu ne nag leer ak bi sallallahu alayhi wasallam mënta tàggoog ay saxaabaam moo tax baaraam bu njëkk bi muy leer abu Aboubacar bu ci topp muy leer ak Omar bu ci topp muy leer ak Ousmane ci topp muy leer ak Ali ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa ñu ne cosaan ak tëjali boobu yàlla mu ngi ko defoon ci baaraam ab day bi moo tax bàyyi mu ne xusuusiya am na ci loolu ndax su nit su ko ree dogee ba nga xam ne mënta tee reetaanam mu ne su xoolee weeyam rek ree bi dana taxaw ngir fàttali ko wegu cosaan ak tëjali bi nga xam ne moo nekkoon foofu ci ci moom la yàlla koon foofu ba loolu amee rek sallallahu alayhi aadama di dox malaaka yi di topp ci gannaawam ba mu ba nga xam ne siisu juddu ba siisu juddoo rek leer ak yonent bi daal di toxu ci siisu mu ne mu gis ne mbindeef yi ko daan topp toppatuñ ko ñu ne ko leer googu na ci sa sët bi nga xam ne siisu lañ koy wax ba loolu amee rek siisu moom nekk ci kenn xamul ñaata at ba jamono ñëw ci nga xam ne mooy maami yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo njëkkee dëkk Màkka moom la ñuy wax Xusey ibnu Kilaab moom mi nga xam ne mu nga dëkkoon ca Shaam mu nga dëkkoon ca Shaam ca dëkk bu ñuy wax Saba moom la alquran di wax nag laqad kaana li sabayin laqad kaana li sabayin fii masaakinihum ayatan jannataani Saba dëkk la woon boo xam ne dafa meloon ni na dañoo am ay bara boo xam ne dafay dañ ci dafay garder ndox ñu di ci rosé tool yi nawet ak noor yëpp waaye al alquran di ko misaal ne comme aljana ba nga xamee ne barrage boobu tasaaroo na nag ci dëkk bi ñëpp tasaaroo nag ñi dem Sham ñi dem Iraq ñi dem Suria ñi dem Makka Kusayn wi kilaab nag moom mu nga nekkoon foofu moom yaayam bootee ko ca ca Sham dox ak moom ba indi ko Makka boobu yàllaa ngi préparé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu di ko wax Muhammad ibnu Abdullahi ibnu ibnu Hashim ibnu Abdu Munaf ibnu Xusay ibnu Kilaab Xusay ibnu Kilaab moomu nag moo njëkk a dëkk màkka fekk booba Jurhum yi ñoo moomoon màkka ñoom ñoo moomoon màkka booba dara foorul ci màkka lu kaaba gi bés rek seen buur bi daal di man yi ne ana kuy ñëw ma jaay ko kaaba gi ci muusam sàngara Qusay ibn Kilaab ne ko man daal di jëndi kaaba gi fekk boobu mi nga am ñeenti doom kenn ki ñu koy wax Abdou Shams ak Abdou Manaaf ak Abdou Dar ak Nawfal kii mu jox ko nand nandal ak kaaba gi kii mu jox ko service yi kaaba gi mu seddalee leen yëpp boobu yàllaa ngi préparé yonent bi sallallahu alayhi wa ba loolu amee rek mu nekk ci nekk ci ba Abdou Moutalib daal di ñëw. bés yàlla ne ko Abdou Moutalib moom mi nga xam ne mooy maami yonent bi salaay yàlla ne ko daal di ko yënkiyal bés ne ko Abdou Moutalib sa borom nee na nga gas zam-zam mu ne ma jaayaanu may gas zam-zam zam-zam boo xam ne sànq woon na ca jamonoy Ismaayil moo fu may xamee teen boobu far la nekk mu di ko def ba bés ñi jox ko ay màndarga ñetti màndarga. ni ko danga ko fekk ca xurab koron cereb korondong ba ak cob ak baaxaañ ba ak picc picc yee fa ñuy cob mu ne loolu fan la ci màkka di wër di wër ba bés mu toog jaaxle di xalaat rek moom nu muy def ba xam teen bii fan la nekk fekk guddi gum tëdd rek yàlla dana ko waxee ooye benn tur ci turi zam-zam yi ñu ne bëri tur dafay tëdd dafay tegtale tedd ak la ñuy tudd zam-zam am na ñaar fukki tur bés bu set rek ñu ooyee ko benn tur mu mu nekk ci loolu rek mu loolu yitteel ko ci mutok ba bés rek mu toog di rek am benn boucher bo xam ne dafa dak nagam di ko yóbbu ca ba fa ñuy mu dàq dàq nag bi bañ na dem mu daal di rey nag bi génnee sébéri tek mu toog rek gis baaxaan bi ñëw di cop mu xool gis ñetti mandarga yiñ ko waxoon mu di ñëw rek ne mandarga yiñ ma doon wax mi ngi nii daal di jël ngorkoom di gas di gas ba commencé jot pindi bi rek waa Quraysh ñëpp war ko ñëw ne ko looy ana looy def mu ne sama borom daf maa diggal ne naa gas zam sam ñu ne ko zam-zam doo ko gas yow kenn rek am teraanga boo xam ne ak yëkkatiku boo xam ne yow kenn rek yaa koy amee féete say nawle kaw loolu duñ ko nangu ñu ne boobu nu ñuy def mu ne kon nañ dem ca Buxayra ca Sham am na làbbi bu fa nekk mu mu àtte ñu waaye man damay sama borom ma ko digal ba loolu amee rek ñoom ñëpp ñu war seen i gawar ne dañuy dem Sham ñu dem ba ca digg àll ba mar daal di dogale leen mar moo xam ne kenn su koo gis ñoom ñëpp ñu tëdd ne ana ku nekk na gas bàmmeelam tëdd moo gën aw askan ñoom ñëpp ñu tëdd ci àll bi dee tan yi di leen lekk ku nekk gas paxam tëdd ñu ne loolu moo gën ku dee sa morom suul la ku dee sa morom suul la kay mujjee dee rek moo dul am ko suul moo gën aw xeet la ñoom ñëpp tan yi di leen lekk ci àll bi ab Abdou Moutalib daal di def loolu ba nga xamee loolu am na nag bés Abdou Moutalib ba mu tëddee ba mu yàgg mu ne mu jaali caaxaan la góor kay dafay jóg di dox ba dee dab ko moo gën nga tëdd di xaar dee mu ne loolu du ma ko nangu daal di ne takkal leen ma sama gawar ba nga xamee ne takk na gawaram rek ba ba ba yegg ci gëlëm gi rek ba gëlëm gi di këddaa tànk bi rek ndox mu sedd guy bu neex daal di génn ñu daal di naan ñoom ñëpp naan sa ñu ne ko yàlla mi nga xam ne moo la may ndox ci àll bu ndeng bii moo la jox ndigal demal gas sa zam-zam mu daal di tawasulu nag ne lii nga xam ne sama borom moo ma ko digal waaye néew doole ñàkk rek moo tax mënuma ko def ñu di ma xeex su ma yàlla mayee fukki doom yoo xam ne dañ nekk ay góor yoo xam ne ay ponkal lañ ba ku ma bëggati loolu rek ñu dox sama digganteeg moom su boobaa danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla ba loolu amee rek mu yàlla di ko def noonu ba bés Abdou Moutalib am fukki doom yu góor jun am na doom bu ñuy wax Abbas ak ak ak ak eh, am na am na doom ju ñuy wax eh, Hamzatu ak Abbas am xam eh, fukki doom yu góor ba fukki doom yu góor yi matee rek bés ñu ne ko Abdou Moutalib sa borom nee na ni si nga waxoon mooy soo amee fukki doom yu góor nga da nga ci rey kenn jaamoo ko yàlla ñu ngi lay fàttali sa nisar si mu def noonu bés mu ñëw nag ne ne ma jaalu nañ ma utal xaaf mi gën a rey ci màkka ma rey ko saraxe ko ñu rey ko xaaf mu gën a rey ci màkka mu rey ko saraxe mu ne dañ maa digal sarax ñu ne ko sa borom nee na bëgg na lu ëpp xar mu ne nañ ko seetal nag wi gën a ci màkka mu saraxe ko ñu ne ko sa borom bëgg na lu ëpp nag mu ne nañ ma seetal gileem gu gën a rey ci màkka dañ maa digaloon sarax ma saraxe ko ñu ne ko sa borom nee na bëgg na lu ëpp gileem mu ne ma jaa lu ëpp gileem ndundal yëpp gileem moo ci gën a màgg kon nag su fekkee ne lu ëpp gëlam fan la fan fu moo ko jëlee ñu ne ko da ngay dem ca bu xaaba wi soo demee nga nga wax ko sa nisar si soo ko waxee dana la wax lu ciy tegtal ba ñëwee mu ne leen yéen ku ray ku ray ci nit ku ray nit ñaata ngeen koy jotee ñu ne ko fukki dañ koy mu ne ko da ngay da ngay sa doom yi leen tegee banti yi ko ku bant bi dal rek nga xam ne moom moom la moom la mu teg doomam yépp mu wantale bant bi dal Abdoulaye mu tegaat beneen mu dal Abdoulaye mu ne dafa juum fekk boobu Abdoulaye moom moo yore moo yore leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaqiqatu Muhammad yéen leer ci moom la nekk mu mel ni weeri Badar ñu ne ko sa doom jooju nga war a rey mu daal di jël ko yóbbu ko dem teg ko teg bant bi bu tegee bant bi rek bant bi dal Abdoulaye ñu ne ko su dalee Abdou xale bi rek nga dolli fukk gilem su dalee xale bi nag nga xam ne loolu la sa borom wax pour nga saraxe ko mu di teg bant bi bant bi dal Abdoulaye mu ne yokk leen fukki gëlëm di ko def di ko def ba téeméeri gëlëm bant bi daal di toxu ci Abdoulaye dal ci gëlëm yi mu ne nag nañ ray gëlëm yëpp ñoom ñëpp saraxe leen ma xam ne ñëpp a ci yem ci màkk ba loolu amee moo tax ñuy wax ne bàyyi borom chariatu bi nga xam ne mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ko jotee téeméeri gëlëm ci la charia doxee ba léegi ku rey nit te tey ko rek da ngay joxe da ngay joxe te dee téeméeri gëlëm ndax bàyyi borom chariatu bi loolu lañ ko jotee woon ba loolu amee rek sallallahu alayhi wasallam Abdullahi mel ni weeri badar ci makka moom bi nga xam ne mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi ko jébbal aminatu ci ci rajab ci ñaar fukki fan ak ñaar rek mu daal di seey ak moom rek mu daal di ëmb yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga xamee ne yonent bi Abdullahi aminatu ëmb na yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na leer goo xam ne kenn mësu koo gis bés bu set rek dana gis kenn ci yonent bi sa kenn ci yonent yi ne ko ñu ngi lay ndokkeel yow mi nga xam ne Ya, amu sangam mbindeef yi di def di def ba juróom-ñeenteeli weer mu gis asiyatu ak ak xadijatu ak asiyatu jabari firawna ak mariam nday isa ñoom ñëpp mu ne yéen lu ngeen lu ngeen xewle ñu ne ko doon ñëw di la reewle ngir ne yaa ngi amu sangab yonent yàlla sangab mbindeef yi mu yonent yàlla muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba nga xamee ne loolu am na nag keroog ba nga xam ne yonent bi mu ngi waaj juddu ba nga juddoo ca kuram abu Talib, mi nga xam bani hashim dañ daan wax ne mm. jamono yonent bi salaay salaam lu nga xam ne moo gën a ràññeeku rek loolu la ñuy nattalee jamono jooju moo tax ñu ne ca jamono bi nga xam ne ci la ci la abrahatu yamaan yi doon bëgg a toj kaaba gi ba mu amee juróom fukki at ci la yonent bi juddu salaay salaam keroog bi yonent bi juddoo ay xew-xew xew na yoo xam ne duñ ko tuddee mojisaat na mojisaat ab yonent ko def waaye fondement la yoo xam ne yàlla dafa bëgg dëgg dëggalal ki nga xam ne moom la yónnee na yonentab yàlla la moom la ñuy wax ay irhaasaat la yoo xam ne yàlla moo ko feeñal ngir tegtale yonent ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam keroog ba yonent bi di juddoo sallallahu alayhi wasallam gis nañ ay kéemtaan yoo xam ne xew-xew bi nga xam ne moo ci gën a ràññeeku mooy nguuru Kisra bi nga xam ne buur la woon boo xam ne mu ngi dëkkoon ci ab palais boo xam ne ak junney jabaram ak junney nukaanam ak junney bëkk néegam taax moo xam ne mësta mejji waaye keroog ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi wasallam ci la taax ma ne tar toj fukki toj tojam ñeent moo ma taax yàqu na euh, kis boxeratu saawaa mi nga xam ne mooy seen dex gi nga xam ne seen robinet yëpp fa la jokk mësta ngàcc waaye keroog ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi ci la ñiis ba mel ni safara lañ fa taaloon keroog ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi wasallam keroog buur fanaanul ci lal buur bu taxawal sa lal rek mu daanu bu taxawal sa lal rek mu daanu ñu ne ñun yàlla rek kay buur ñun ñëpp nañ fanaan ci suuf keroog kenn benn benn buur fanaanul ci kaw lal keroog ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi xew-xew yu ràññeeku yu nekk gis nañ ay mbindeef yoo xam ne dañuy jëm ndeyjoor di jëm càmmoñ di woy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wulida muhammadun huwa rabbul bayit ñi gis kaaba gi di jeng jëm ndeyjoor jëm di woy ñëpp di ko dégg naan wulida muhammadun huwa rabbul bayit ndokkee leen yonent bi sallallahu alayhi moom mi nga xam ne mooy sanga borom néeg bi keroog bi yonent bi juddoo sallallahu alayhi xew-xew yu ràññeeku am na sooy batu mi nga xam ne moo fekk moom mbaam yàlla am abu jaal abu lahab la mi nga xam ne dafa kontaan ci wasin gi ba dem nettali ko abu jaal abu lahab abu lahab kontaan ba ne ko goreel naa la moo tax ñu ne abu lahab mi nga xam ne ku texee di la ku torox la gis nañ ko ca safara foog gën a sori waaye kontaan gi kontaan woon ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax guddi yi altine gu nekk yàlla daf koy teggil mbugal ngir loolu ñu ne bàyyi daan na wax ne lu ngeen xam nag ci ñoo xam ne ay soppe lañ ñoo xam ne gàddaay nañ seeni nelaw gàddaay seeni alal di ñëw toog ngir bëgg ko ñooñu mën nañ cee am lu ëpp li ci Abu Lahab amoon te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñu ngi toog fii tey ci tànn baar ci dëkkab Fatimatu Zahra ci ron Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Ahmad daam kon yàlla leen yàlla defal barke boobu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Shuaybatu ñi nga xam ne nee na gis na keroog ba yonent bi juddoo leer faqee na ci Aminatu te saaroo ci mbedd Màkka yépp fépp foo xam ne ñelmeen tableer daloon na fa rek kenn ci kàngam sahaaba yi jógee na fa ñëw keroog bu yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa juddu ni nga xam ne noonu la xale yi di juddoo xale su na loolu aminatu ba nga xamee ne yonentu am na ñaari weer ci biiram ndeyam ci la wax ne aminatu ne maa ngi dem Medina fi nga xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa su gàddaayee foofu na xala jëm ne ko soo yégee mat rek na ko wax sama sama baay Abdou Moutalib mu wax ko ko Abdou Moutalib dem ja dem jàpp ci jaaral kaaba gi yàlla yàlla nga may aminatu doom ju sedd xol yàlla nga may aminatu doom ju tedd doom joo xam ne doomi teraanga la keroog ba yonent bi juddoo salallaahu alayhi wa gis na ay kéemtaan yoo xam ne gis nañ ca kuram abu taalib bi nga xam ne fa la juddoo fukki doom yu góor juddoo na fa waaye ba loolu amee rek yonent bi salallaahu alayhi ñu toog rek ay malaaka daal di ñëw rek jël ko ne cas dem ak moom aminatu ne di jooy di caalit nag ne Quraysh yi julo waa bani Haashim doom joo xam ne kenn mës ta gis doom ju mel noonu waaye sàggan nañ ba yóbbu nañ ko nekk malaaka yi dañ koy wër ak asamaan ñu ne nañ ko wër ak asamaan ndax su taw bi tabe ci tabe ci gaa ci mindeef yi nañ ko wër ak suuf si ndax suuf si saxal gàncax nañ ko wër ak géej gi ndax xeetam mujj ci lab ba loolu amee rek ñi daal di dellu seeg moom bàyyi mu ne ñu ngi ko ñu ko ordoo sarbet boo xam ne sarbet bu sooy la mi ngi gàddu ñetti caabi yoo xam ne caabi yu ñu ko jox ne ko mu ubbi àddina bi yëpp ba nga xamee ne loolu am rek sallallahu alayhi wa Aminatu daal di ñëw tiim ko foon ko fu ñu wax rek fukki jigéen jóge taayif yoo xam ne dañu daan ñëw di ut si doom yu nàmpal ci màkk màkka dafa tàng te dafa bëri ay feebar bëri ay ngelaw waaye képp koo xam ne am nga mën-mën sa doom taayif la yaroo taayif nag moom amoon na nga dëkkoon dëkk bu sedd la woon boo xam ne amoon na naa tànge fukki doom fukki jigéen jóge fa ñëw di ut si doom yu ñu nàmpal ku ñëw rek ñu ne na kii baayam dafa dee ba mu amee ñaari weer ci biiram ndeyam ñu ne ñun de dañoo bëgg doom yoo xam ne baayam a ngi dund su la suñ la fayee sax buñaa la waaye koo xam ne baayam dee na tamit suñ la fayee duñ la buñaa ñu jël doom yu am yu bàyyi yëpp ci fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam Halimatu Saadiya mi nga xam ne nag moo ci gënoon a ñàkk wajani mbaam moo xam ne mënta jote la waroon ñëpp jël doom yu am yu bàyyi ci fa yonent bi sallallahu mu ne xanaa ma jël ko moo gën àllam leen ànd ak say nawle ñoom ñëpp ñu am doom yu nàmpal yow amoo doom yu nàmpal ba loolu amee rek salaay salaam moo tax ñu ne bokk na ci ñi nga xam ne seen njort ñu gën a dëggu ñi seen njort gën a dëggu ci àddina ndax mi ngi ñëw amul tus waaye mu yóbbu koom woo xam ne mooy koom àddina ak àllaaxira rek mooy yonent yàlla Muhammad salaay salaam ba loolu amee rek salaay salaam ba mu jàpp ba mu jëlee yonent bi rek ba yaayam mu ne ko dem da nga koy nàmpal ñaari at ñëw delloosi ko ba mu ko toggee ci mbaamam mi rek. ñu ne xanaa gisu leen am xalimatu eh, saadiya mi nga xam ne ba ñuy dem kenn mënta jote waaye léegi kenn mënatu koo dab ñu ne xanaa gisu leen gëtt gu neex ji muy xeeñ ñu ne xanaa mindeef mii mu war de xam naa mi mu togg ci gawaram xanaa mindeef mu barke la ba loolu amee rek xalimatu saadiya ba demee ca taayif rek gis nañ barke ak naataange boo xam ne ci barke yonentu bi sallallahu alayhi su suñuy lekk ak yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp dañuy suur waaye su fa yonentu newul sax lekk gi du doy nit ñu ne ñu sàmm dem leen sàmmi fa xalimatu di sàmmee ndax moom fu mu jublu rek naataanga jublu fa nekk barke yonent yàlla muhammad la salaay salaam ba bés rek mu ànd ak xale yi dem di rëbbi jibril ak mikaayil ak israfil soppeeku ay till daal di ñëw xale yi daw moom nag ci taggee yi ñu koy taggee dañuy wax ne moom du daw moom du ragal du yokkat moom moom mu yonent yàlla muhammad salaay salaam doxam naagu la reem muuñ la nelawam gëmmentu la bu seyri di dafa weex tàll weer ñu ne ñooñ ña ca kaw ga xonq mooy taar ci ñoom ña ca taax yee weex mooy taar ci ñoom moo tax dafa boole xonq ak weex ñu ne dafa digg doomu taxawaay guddaayu ko njolaayu ko dafa nekk ci digg ba waaye su taxawee nit ñi nag luñ gudd gudd rek mu tiim leen ñu ne ay yaxam dafa dafa dijj ñu ne dafa dijj ay loxo yaxi loxo ak yaxi tànk dafa am ay sikkin ak faas boo xam ne faas bu gudd la ay bëtam dafa rëy ay gémmiñam dafa rëy mu ne su ree dafay mel ni melax waaye melax woo xam ne dafay mel ni yor guy taw kooku ma yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nag du daw du ragal ba xale yi dawee rek moom dawut jibril daal di ñëw ak mikaayil ak israfil ñu ne aw huwa huwa moom la ñu ne moom la tigi ñu daal di ko jàpp rek defal ko opération xotti xolom bi ñu ne aw lumba ngi ci woo xam ne mooy cër ak seytaane ci moom ñu ne su nekkul ci moom rek du nekk doomu aadama ju mat te yàlla dafa bëgg mu mat comme doomi aadama yi waaye lépp lu nekk ci moom lu ci bokk rek ñu dindi ko ci moo tax mu ne ku ci nekk am na seytaane am na fu muy jaar di la jax-jaxal man nag sama seytaane du ma digal lu mooy lu baax mu ne man sama seytaane tuub na ci beneen riwaaya kooku ma yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi daal di ko defal opération waaye ba mu paree ñu kaste ko ak xam-xam raxas ko ak zam-zam kaste ko ak ay leer yoo xam ne xam-xam yu jëriñ ñu daal di ko delloowaat ni meloon bàyyi mu ne kuy opéré kat yi sax mënuñ loolu ba loolu amee rek xalimatu saadiya ak jëkkëram génn di war yonent bi salaay salaam ñi dajeeg moom ñu ne ko loola dal loo gis mu ne dara loola dal mu ne dara ah, jëkkëri xalimatu saadiya ne ko gone gii nañ ko delloo balaa ñu cee nattoo dal gone gii daal dafa mel ni dafa am ay mbir muy feeñal nañ ko delloo balaa ñu ko nattam dalal fekk na bañ ñëwee ba mu amee ñaari at ñëwoon nañ ne ne yaayam kii daal bëggu ñoo tàggoog moom ba ne xanaa yéen sama doom ji yéen moo gën a bëgg ñu ñëw delloo si ko aminatu ne leen lu tax ngeen bëgg bërki dem bëggu leen woon tàggoog moom lu leen xiir tey ngeen di ko delloo si ñu ne ko dañoo ragal ne kii daw jinnee ko bëgg a jàpp mu ne sama doom ji kay jinnee ko ragal waaye ragalul jinne sallallahu alayhi wasallam, sallam ba nga xamee ne am na juróom benn at ci la yaayam dee ñu jox ko maamam abdou muttalib ba nga abdou ba mu amee juróom-ñeenti at abdou muttalib dee ñu jox ko baayam abou taalib bàyyi mu ne yàlla bëggul kenn dimbale ko ndax ku ko dimbale woon rek dañ wax ne li nekk ci moom moo ko ci def ba muy juddu judduwul ci bési àjjuma su juddoo woon àjjuma ñu ne li nekk ci moom àjjuma jaa tax ba muy juddu kenn dimbale woo ko moo tax yàlla bëggul kenn am ci cër lu dul moom moom yàlla sa moom yàlla subhaanahu wa taala ba loolu amee rek sallallahu alayhi ñu jox ko bàyyam Abu Taalib Abu Taalib moom yàlla dimbale na ko ba mu fekkee ba yàlla yónnee yonent bi sallallahu ba loolu amee Abu Taalib bëgg ko di ko dimbale ba bés. abu taalib di dem Cham gis ne yonent bi dafa bëgg a ànd ak moom mu ne ko da ngaa bëgg ànd ak man mu ne waaw mu ne kon nañ dem bañ demee ba ca dëkk boo xam ne bu xayraaraay fa la nekkoon ñi daal di takk seen i gawar di noppalu foofu fekk buur fekk buxaaba yi jàngoon nañ ci téere yi njëkk yi ne bés bii nii ki nga xam ne moo mujj ci yonent yi bés bii fii dana fi yendu ñi di ko fuglu ñoom xamoon nañ te xamoon nañ melo yi ne ci moom ba loolu amee rek buur bi ne nañ leen ool nañ ko ool ñu nekk ci benc mi yëpp ñu ñëw mu évité daf leen évité añ ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow nekk ñi suñuy bagage ñu dem te ñëw bañ ñëwee mu ne nax ni ngeen day ñu ne ko waaw ni leen day mu ne déedéet laa budda am na ku des ñu ne ko kenn desut lu mooy xale boo xam ne moom la ñuy moo ñuy gardé suñu bagage mu ne ko xale boobu day mooy seen war badar moo tax ma évité leen su nekku ci yéen rek leer du nekk ci yéen ba ba mu ñëwee rek ba mu xool ko ba gis melo ne ci moom mu ne gone gi kuy baayam Abu Taalib ne ko man maay baayam mu ne ko déedéet yow doo baayam yi gone baayam du dund mukk mu ne ko maay baay taxam ndax baayam dafa dee ba nga xamee ne am na ñaari weer ci biiram ndeyam mu ne noonu lay demee de mu ne ko dëpp gone gi ba yawut yi jàng nañ njëkk yi te gis nañ melo yi ne ci moom suñ ko gisee ba xam ne yonent judd na boo xam ne juddu ci yawut yi xanaa juddu ci arab yi dinañ ko rey fi ñuy waxee rek juróom gawar daal di ñëw ne yónne mu leen yéen ngeen di ut ñu ne ko dañuy seet yonent bi nga xam ne moo mujj ci yonent bi jàngoon nañ ne bés bi dana ñëw fii suñ ko gisee rek rey ko mu ne su ngeen rayee doomi jàmbur ndax tooñu leen ndax mën ngeen a li yàlla namu ñu ne déedéet mu ne dem leen yéen ay dof ngeen mu ne abou taalib gis nga li ma la doon wax dëppal ak moom moo tax yoon woowu yonent bi sallallahu alayhi wasallam àggut Cham dafa dëpp moo tax ca guddi grañaan ga nag ba mu di wax ni Cham mel ci lañ xam ne lii ak yonentu la ndax yonentu mosu faa dem yonent mu daal di dëpp ak yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam ba nga xamee ne am fukki at ak ñaar ci la waa ci lañ def association boo xam ne Hizbul Fudur la tudd mooy association boo xam ne doomi tànneef yi ñoo dajee képp koo xam ne bëgg nañ laa lor fii ci màkk rek ñu ne dañ doxee dañ dañ dajee faj ko ndax booba ku ëpp doole rek def lu ko neex yonentu fekke woon na ko bokk na ci ba nga amee ba xamee ne am na fukki at ak juróom-ñaar ci la waa màkk tabax kaaba gi ñi tabax kaaba gi ba àgg ci teg xajarul aswad ñu ne xajarul aswad kenn du ko teg ci barabam lu mooy ku ko teg ci barabam rek da nga féetee say nawle kaw ba pencam yàlla ñu xëccoo xëccoo ba tabaxatuñ gannaaw bi ñu dajee ci lenn ñu ne mbedd mii nga xam ne mooy bunta bëni cheybate bii nañ ku fa jógee tey rek accès ci ñun rek nañ ko àtte loolu mu àtte rek ñu def ko ba loolu amee rek yonentu ne jëlañ jaar fa ñu ne tànn loo nañ yàlla yàlla tànnal nañu ki nga xam ne mooy amin mouhamadul amin lañ ko tuddee woon kuñ óolu gi ñu ne ko yow yàlla boo ko kaay teg ko mu ne man de danaa def loo xam ne ñëpp danañ ci kontaan ne indi leen ma malaan ñi indi ko mun a nañ jël xajaral aswad teg ko ci mu ne ñëpp nañ ci jàpp yëkkati ko tegarandoo ko mu daal ko tabax ak loxoom bu sell boobu sallallahu alayhi wa ba nga xamee ne am na ñaar fukki at ak juróom ci la denc jabaram xadijatu melab dencam toog na ci kër baayam yi ak baay taxam yi ba ñëpp ne Muhammad mii mat naa takk jabar ñu ne waaye fu muy jëlee lu mu takkee jabar te moom amul tus ñu ne ah na dem ci xadijatu rek moom mi nga xam ne moom ku business rek commerce rek mu jox lam njaay nga jaay su demee lu mu ci am rek mu ñu takkal ko ci jabar ba loolu amee rek fekk xarijatu géntoon na weer wi daanu ci néegam daanu ci ay luppam mu laaj ko xamkat yi ñu ne ko yonent bi nga xam ne moom mujj ci yonent yi mooy nekk sa jëkkër mu di ko fuglu ñu ne kooku de waaje moom ay meloom mooy bëri kersa ak ak jaamu yàlla mooy meloom mu di ko fuglu ba bés rek yonent bi ñëw ne ko damaa bëgg nga jox mam njaay mu daal di ko booleeg jaamam bi nga xam ne may saratu lañ koy wax moom mënoon naa bind mu ne ko àndal maag moom te mu am benn coono te lépp loo gis ci moom rek nga bind ma ko ndax xamoon na melo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamee ne ànd naag may saratu ba bay dem Sham rek ñu gis ba dëkk Xijaas réewu Xijaas dafa bëri bëriwut ay garab garab te dafa tàng waaye ñu gis garab ak ndaññantaan goo xam ne garab su la nit ñëpp taxaw ci ci ker ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ut fu taxaw ut ut taxaw amut fu taxaw mu taxaw ci naaj wi ker gën a ñoreet wacci leen fa ñëw kere yonent bi sallallahu alayhi wasallam may sarot daal di bind loolu xadijatu ba nga xamee ne dem nañ dem nañ ba Sham benn waaye mu ne gis nga xale bële toog ci roon garab gee da ngeen xam ne ku yàlla yónni na ndax Isa waxoon na garab gee kenn du fa toog lu mooy ku yàlla yónni kon nag na ngeen xam ne kee yonent bi yàlla la may saratu daal di bind loolu xadijatu bañ demee Sham ñu ne def na fa ñaari weer ak ñaar fukki guddi muy ñett muy juróom benn fukk muy muy ñett fukki guddi muy juróom-benn fan juróom muy ñaari weer ak ñaar fukki guddi ñi muy jaay di jaay waaye su ñëwee suy jaay rek malaaka yi ñëw naan ko jaay ma jaay ma su guddee ñi si siwaat marchandise mi nekk bëgguñ sangab mbindeef yi am benn coono mu daal di dajale alalam ak njaay marchandise ma yépp ñëw jéppal xadijatu dem toog mbokkam yi ne ko demal ci xadijatu mu fay la moom dafa bëri kersa su ñëwee ba jub xadijatu rek dëppu dëppu di ko def ba muy ñetti yoon xadijatu ne ko yow lan la luy mbir mu daal di ko woon gannaaw ne ko samay mbokk nee nañ nga fay ma mu ne ko looy defee pay gi mu ne ko nee nañ dañ may takkal jabar mu ne ko traite yi benn yoon rek nit mën na cee samp kër mu ne ko ah man de samay mbokk loolu lañ ma wax ñu ne mu daal di ñëw mu ne ko demal soo demee nga wax leen ne leen gisal naa la jigéen joo xam ne jigéen ji askanu la ku rëy judd la ci xuraysh ku bëri alal la mag la nag ci ay at loolu rek mooy sikk si waaye kooku de soo ko bëggee man danaa la ko labatal te dana yomb ba mu ñëwee wax ko Abu Talib, rek ñi daal di mer bay firfiri ne Xadijatu mbaadu alalam ju bëri ji moo tax muy beew ba naan dafay utal suñ doom yi jabari magget nañ dem ñu wax ko boppam ba ñëwee rek ñi daal di àkk si ko mu ne man day sama bopp laa koy garal ñu ne ko ah yow de moom màggetam gaynde nga fekk bani am jabar ju bokk ci bani Maxzum ci nga xam ne ci la nyop bokk ba loolu amee rek ñoom ñëpp ñu nangu mu ci ak dof mu ne Muhammad ibn Abdullahi mi nga xam ne amut 15 du yàgg ba ma may ko sama doom di def loolu Xadijatu ne man danaa def pexe booba sàngara araamagul mu daal di nàndal ko sàngara solal ko yére yu ees booba kuy takk kuy maye sa doom daf lay solal yére daal di ne ko Muhammad ibn Abdullahi mi nga xam ne suñ ko lë suñ ko lëngalee woon góori àddina yépp mu lëngaleen ci ngëneel moo ma bëgg loo ci xam mu ne ko du mayoon naa la ko mu ne ko bindal signé mu bind signé mu daal di oo ñaankat yi ñu ne Aboubacar bokkoon na ci abu talib ci la ñëwee xutbaam xutba gu si googu ne ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci maad ibn adnan ci cosaanal muraad ñoo ñaanal muhammad ibn abdullahi mi nga xam ne suñ ko boole woon ak góor yi àddina yëpp mu lëng leen ci ngëneel mu ne loolu ñu daal di ñu ko may bi sallallahu alayhi wasallam ñu na ko ñaar fukki ak fukki dollar ak ñaar mu gi gi mën na woy ba rek fekk abu abu xadijatu moo gën a riis ci màkka mu alalam ji may na ko Muhammad ibn Abdullahi Quraysh di ko njéej ji naan dégg leen waaye Xadijatu mii moo dof kii de barki dem moo fi gënoon riche waaye tey moo fi gën a ñàkk alalam yëpp may na ko miskina bani Haashim mi yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko man de soxlawuma alal dama bëgg rek nga di ma defal yóbbal boo xam ne damay dem caxaara xiraay fa muy jaamoo yàlla loolu rek doy na moo ma dara ñu bàyyi mu ne ndaw luy jaamu yàlla ci àllab kett nekk boobu ci lëndëm ak kéeféer boobu lañ xam ne yàlla namu na ci moom mbir ba loolu amee rek yonent bi salaay salaam di dem ca gaaru xiraa doj doj woo xam ne ñetti kilomètre la ca jubbu doj wa fa la daan dem toog rek di jaamu yàlla ba rek jibril daal di ko feeñu ya muhammad iqra mu ne ko maana bi xaarin jànguma jibril njett ko ba bëtam yi bëgg buqeeku mu daal di jógee fa ñëw di firfiri di lox naan sàngaleen ma sàngaleen ma mu ne xanaa damay bëgg a dof xarjatu ne ko lan la lu xew mu ne fa ma doon bu set am ci ji di wax ak man naan ma jangal jangal tey nak njett na ma ba sama bët yi bëgg a buqeeku dama yaakaar ne dama bëgg a dof xadi jotu na ko yow da dof yow mi nga xam da ngay ganale gan da ngay dimbale ko am soxla ci dëgg te da ngay fàggaloo ñàkk ci dëgg dëkk kuy def loolu yàlla du la toroxal te jikko yooyu yëpp yow làmboo ko waaye nañ dem ca waraqatu ibnu nawfal nga wax ko sa gént gi mu wax la lan moo mu dégg sa doomi mbokk mi muhammad ibnu abdullahi muhammad ibnu abdullahi daal di lim gis mu ne ko kii dey du dof kii dey la doon boobu ca noppi Moussa ba mu nekk yonente bani Israël loolu moo ne ci moom xellante woon ma dund ba fekkee keroog bañ koy génne màkka yonente ne ko man dañ ma génne màkka hmm. mu ne ko wallaahi dañ la génne màkka mu ne li nga dikkee kenn du ko dikkee ci askan lu mooy noonu nañ ko añaane nañ ko génne nañ ko te loolu yëpp am na ba loolu amee rek sallallahu alayhi wasallam Xadijatu ne ko soo loo waxatee loo su ko jàngal bu ko wax ne ko jànguma laaj ko lu may jàng ba mu ko waxee rek mu ne ko lu may jàng bismi rabbika iqra bismi rabbika alquran daal di wàcc saar yi daal di wàcc nag di tegaloo yonentu nag mi nga xam ne dafa bëggoon jàng di jaamu yàlla di wéetal yàlla taxamul dara bu ko yàlla yónnee nag kenn dootu dégg ak ngir alquran ji mu jàng saar yi di tegaloo yaa ayul mudassiru yaa ayul muzammilu yaa ayul yow mi nga xam ne yow miy sàngu kum fa anzir jogal wax ak ma jogal wax ak nit ñi kum jogal fa anzir nga jóg wax ak nit ñi ñi ne li nga xam ne moom lañ la jox muy risalatu bi nga xam wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina risala boo xam ne dafay daj àddina yépp jamono yépp koo xam ne jox na la ko nag sàngoo mbàjji way na nak jogal nag yonent bi nag di jàng rek di jàng rek waxtu nekk abu jaal ibnu hisham mu ne lu nekk mën naa koo muñal muhammad nag ba mu ci su Muhammad bëggee jàng fii ci Makka maa fi ëpp ay waxambaane tooyam danaa ebal sama waxambaane tooyam yi ñu buuma boom ko ba nga xamee ne yonent bi dégg na wax ji wax ji naqari ko rek ca ca ca guddi la daan ñëw ci Kaaba ga waaye keroog ca takkusaan la ñëw jaarul sax ca buntu Kaaba gi waaye dafa jaar ci tappaat bi tëb tappaat bi taxaw ca Kaaba gi di jàng ca kaw Abu Jahl Quraysh yi gars yi ne ko sa mbokk mi nga waxoon ne du jàng ma ngay jàng loo ci xam abu abu la Abu Jahl gàddu yat boo xam ne toll na ni boppam nit ne dafay ñëw toj bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ba nga xamee ne ñëw na ba jub yonent bi rek ne ba di daw ñu naan abul xakam looy daw mu ne wallaay loosu kuyal jërëm woo xam ne ngaa mi kawaar ca asamaan beneen ngaa mi kawaar tegu ci bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ma soo ma jubee rek ma lekk la moom la yonent bi sallallahu alayhi ne zaka jibril kooku de jibril la mu ne wallaay jibril la su ñëwoon rek ngeen gis mbindeef moo xam ne malaaka yi dañ koy bëf yóbbu ko safara sax te du jaar ci dee moom la alquran di wax naan falyad'u naadiyahu sanad'u zabaaniyata soo away waxambaane tooyamam yi man danaa ebal bëkk néegi safara yi ñu yóbbu ko safara léegi wallahi abu su dayut danaa ko jàpp te danaa ko alak de sallallahu alayhi wa sallam yonentu nekk ci ooteem boobu bi xamee ne yàlla wax na ko ne ko ne wa maa arsalnaaka illaa illaa kaafatan linnaasi ool mbindeef yëpp ool mbindeef yëpp defuñ lu dul di ko lar di ko yeggi di ko di ko di ko di ko di ko xalab naan musamman man xalay naa wa diinahu abay naa musamman mi nga yonentu mi nga xam ne mooy Muhammad soo ko tuddee rek tagg nga ko mënoo ci dara ñoom xamoon nañ loolu ñoom ñu tuddee ko musamman ñu ne bàyyi nag mu ne musamman su fekkee ne am na ci màkka mooy Abu Jahl ak Abu Lahab waaye kii nag Muhammad la moom mi nga xam ne mooy Muhammad mooy ki gën a sant yàlla égal ki gën a xam yàlla yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci màkka di jaamu yàlla ba Quraysh naan mu ashika muhammadun rabbahu ñu ne muhammad mii de moom dafa faa boromam yonent bi daan sikkar naan allah allah allah di sikkar di dem ba kenn gisatu ko ñu ne muhammad mii de dafa faa faa boromam bi rek ndaw lu jaamu yàlla ci àll boobu ci lañ xam ne boobu yàlla mun na ci mbir moo tax Baye di wax ne awal kulul muslimina xaqiqatan wa awalu mun aada sharika wa an moom mooy njëlbeen ak yonent bi sa njëlbeen ak mooy ki nga xam ne moo njëkk a bañ xërëm yi mësta jaamu xërëm yi ba nga xamee ne loolu am na nag ñu di ko pexeel pexe mu ne def nañ ko mënuñ ci dara gannaaw bi ñu ne ni nag mënuñ koo muñ nañ dem ci suñ bàyyi Abu Taalib mu wax ak moom moo gën ñi nekk ba mu dee ñi rey Muhammad su fekkee ne Muhammad jigéen la bëgg ñi seet jigéen ñi gën a rafet ci Màkka ñi may ko ko su fekkee ne alal la bëgg ñu dajale suñu alal yëpp jox ko ko ba mu nekk ba mu gën a riis ci Màkka su fekkee ne buur la bëgg ñu fal ko muy suñ buur moo gën muy oote lii muy oote lii Abu Taalib daal di oo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa mbokk yi de wax nañ lii wax nañ laa mu ne man day waxuma loolu li ma wax mooy benn baat rek laa wax suñ ko waxee rek jàmbur yi danañ leen jox jarak galak yaaram yi tamit danañ leen fay galak ñu ne ko baat boobu wax ko wax fukkam ñu ñu ñu jox la lépp loo bëgg te nga bàyyi li ngay wax mu ne xanaa ngeen wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ne ko Mouhamad yow foo ñu jëmee ñun ñu am ñetti téeméeri yàlla te ba léegi suñu soxla yi fajowul nga ñëw dañuy jaamuloo benn yàlla Abu Taalib ne ko sa mbokk yi dey bëgg nañoo juboo yonent bi daal di jooy sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallaay suñ jëloon jant bi teg ko ci sama loxo ndeyjoor mu di ma lakk ñu jël weer wi teg ko ci sama loxo càmmoñ mu di ma lakk ngir ma bàyyi lii may oote du ma ko bàyyi ndax yàlla moo ma ko digal Abu Taalib ne ko fal yeddu fasta bi maa tumaru waraloon li sa borom jëmal wallaay lan yasulu alayka lan yasulu xataa wasatu turaabi naa mu ne ko wallaahi duñ agsi ci yaw mukk lu dul ma dee nga gën a yow samay doom ba nga xamee ne loolu am na nag si nag def nañ pexe mu nekk mënuñ ci dara dañ daan taxaw ci gannaaw kër yonent di ko yéeg di ko kii dem nañ ba mu yàgg sax ñu ne nañ dem gëm wax ne gëm nañ ba ngoon ñu génnaat ci diina ji ngir bañ ni ñu topp ko ngir ngir ñu ne kii li mu nekk du dëgg waaye yonent bi nekk ci loolu rek waaye juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo njëkk ànd ak moom lu nekk Abu Jahl def na leen ko ci àddina Ammaar ak Bilaal ak Shuaybatu ñii ak ak ak Sumayatu ñii Abu Lahab Abu Jahl def na leen lu nekk ci àddina Abu Bakar Siddiq ak alalam yu bëri ak bëkk néegam yu bëri kenn mënu ko mënalu ko dara Omar bin Xataab moom kenn mënalu ko dara jàmbaari fàkk tëdd la boo xam ne Aliyu nag moom wànnentu la boo xam ne ku bàyyi ku mu bàyyi say bët nga bàyyi yesam waaye ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole mooy Ammaar ak Yaasir ak Sumayatu ñii lu nekk Abu Jaal def na leen ko ci àddina Yaasir nee na Abu Jaal Ammaar nee na Abu daf ma jël tër ma ci safara boo xam ne daf ma jaar tër ba geres gu bàyyeekoo ci moom mooy far fay safara si Yaasir baayam mu jël tànk bi teg ko ci benn gëlëm jël tànk bee teg ko ci benn gëlëm dàq bii mu jëm fa mu dàq bee mu jëm fële Sumayatu mi nga xam ne nag mooy jigéen ji nga xam ne moom lañ njëkk a ci lislaam moom Abu Jaal def ni ko xam naa ñiy wet yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen du ngeen ci bokk ndax taaram waaye yow da nga ko utee daal di ko jël rek dëbb ko xeej ca péyam ba mu génn ci ndigg li ngir loolu la ko def ba loolu amee rek <coughs> ñu ne ñu ne nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku ànd ak yow ñu ngi koy lor di lakk ay këram di ko génnee këram li ñuy def nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne da ngeen a foog ne da ngeen wax ne gëm ngeen rek te yàlla du leen nattu ñi leen njëkkoon yàlla def leen daan nattu ci seen diine waaye duñ ci génn mu ne daan nañ teg nit di ko fees di ko fees te du tax mu génn ci diineem daan nañ teg di ko sii di ko sii ba tàggale derem ak yàppam te du tax mu génn ci diine waaye yéen da ngeen a foog ne da ngeen a gëm rek te yàlla du leen nattu waaye lii wóor mooy mbir mii dana mat mbir mii dana nit dana jógee màkka ba dem ca sanaawul yaman te du ragal dara lu mooy yàlla wala boog till ci ay gàttam waaye mbir mi dana mat kenn mënu ci dara ba loolu amee rek sallallahu ay wa sallam mu ne su fekkee ne nag mënu leen a muñ loolu ngeen gàddaay dem Habasha buura nga fa boo xam ne du tooñ te du nangu ko tooñ fa moom ngeen dem ci moom su ngeen demee mu làq leen ñu ne Seydina Ousmane ak Roqeetu doom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci juróom-ñett fukki ci sahaaba yi ak ñett ñoom ñoo njëkk a dem Habasha waaye yonentu ak Aboubacar Siddiq ñoom desoon dañoo desoon Màkka ba nga xamee ne dem nañ xabasa nag Quraysh daal di yónni ñaar ñi gën a ñaw ci Quraysh muy Amru Amru ibn Aas yi ak Amaaratul Walid jox ko ay yóbbal yoo xam ne ay njëganaay ak ay der yoo xam ne dañ ko wëlli ne da nga bëgg nga dem ca buur yi xabasa nga wax leen fexe ba convaincre bañ ñëwee rek mu daal di indil buur bi ay yóbbal ne ko nag am na ñoo xam ne yàq nañ màkk indi nañ diina juñ xamut tasaare nañu suñ mbooloo mi yàq nañ màkk yaxeet léegi nag ñëw nañ ci sa dëkk bi dañoo bëgg nga nga leentu nga moytu leen balaa ñoo yàq sa dëkk bi fekk booba saxaaba yonent yi salaay salaam ñu ngi làqatu foofu ci xabasa buur bi ne demal ool ma saxaaba yi nit yi nga xam ne ñu ngi fii ci xabasa mu daal di oolee ñu ñëw ba ñëwee ñu ñëw ñu ne ñu ñëw fekk buur bi toog ñu ne ko asalaamaaleykum mu ne ko ñu ne ko gis nga gis nga ñoom duñ la nuyu mukk nu la nit ñi duñu ñu nit dañ la nuyoo nu la nit ñi mu ne leen yéen lu tax nuyu leen ma ñu ne ko nuyu nañ la nuyu bi nga xam ne mooy nuyu waa aljanna mooy nuyu bi nga xam ne moom la ñu nuyoo suñu yonent bi salaay salaam mu ne kon nag man kontaan naa ci loolu mu ne yéen lan mooy seen mbir ñu ne ko ñun de dañoo nekkoon ci màkka di jaamu xëram di njaalo di di di di di di def xeeti bon bu nekk di di di sàcc di tuur deret ba yàlla yónnee ci ñun yonent boo xam ne ñëw na di oote benn yàlla ñu jaamu benn yàlla bañ koo bokkaale di yéwénal mbokkoo di rafetal ànd ak waajur wax jikko yi rafet rafet mu ne leen waaw yéen seen yonent bi lu mu wax ci suñu yonent bi jaafar daal di jàng suratu mariam di jàng banaan inni abdullahi aataani al kitaabu wa jaala nii nabiyan wa jaala nii mubarakan aynama kuntu awsaani bi salaati wa zakaati ma dumtu hayyan wa barab bi walidati walam yakun jabbaaran asiyan wasalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubaasu hayyan ba mu waxee loolu rek Najaasi daal di jooy jël bantab sekkat ñi ko kaay mu ne wallaahi li ngeen wax ak la Eesa waxoon amul différence bu tool ni bantab sekkat ñi ko kaay bi mu ne yéeg gees Amaaratu Walid ak Omar ibn Aziz ne ci ñii ngeen bëggoon ma dal ci seen kaw wallaahi su ma daloon ci kaw ñii kon fu ma koy waxee mu ne ñii de su fekkee ne duñ ay waliyu yàlla ci kaw suuf yàlla amul ay waliyu ci kaw suuf. mu ne booy leen ci suufi màkka dox leen nu mu leen neexee kenn dootu leen gaar ba loolu amee rek salaay salaam fekk amaaratu yi ak Amr ibn ñoom ay noon la ñoo xam ne ku nekk mu ngi doon fexe sànq sa moroom ba loolu amee rek amaaratu Walid daal di wax Amr ibn As yi ne ko yow mi nga xam ne da ngaa taaru te da ngaa rafet te da ngaa fasaa buuri buuri yaaram yi tubaab yi seen jabar yi ñooy seen kilifa dañoo bëgg nga dem waxtaan ak jabaram ba convaincre ko rek mu jébbal ñu saxaaba yonent yi ñu rey leen ba mu xamee loolu am na rek muy dem ci néeg jabari buur bi di waxtaan ak moom amul lu ñu waa si daal di yolleeku daal di dem ci buur bi ne ko gis nga ki ma àndal moom saay-saay la boo xam ne fu mu dem rek def fa yëf sew di fa caaxaan gis naa nag mi ngi dugg sa néeg jabar maa la koy moytuloo ba bés rek buur bi ñëw rek fekk amul lu ñu waa si di génn ci néeg néeg jabaram mu ne kii de ndeke li ma mbokk muy wax ci moom dëgg la daal di oo njabarkat yi ñu njabar ko def li ko ci pee mu dof di def yarami neen ba daanu ci ak géej moom noonu la dee amul ibnu asi daal di ñib si moom ak pexeem mu yàqu ak noonam bu alaku amee fekk aboubacar siddiq tamit Quraysh si sonal ko ba mu bëgg a gàddaay ne ko man de danaa la garanti su fekkee ne dangay ngay jaamu yàlla sa biir néeg nga jaamu yàlla sa biir kër moo gën ngay gàddaay ndax koo xam ne mag mu mel ni yow ku am barke ku mel ni yow kenn war a ko seetaan mu génn màkk man nag danaa la protéger ci màkk ba kenn dootu la génnee waaye nag da ngay jaamu yàlla sa biir néeg Aboubacar Siddiq daal di tabax jàkk ci biir këram di jaamu yàlla moom xolam dafa nooyoon di jàng alquran di jooy jigéen ñi di tuub ak xale yi ñëpp di tuub di dugg ci lislaam gannaaw gi nag Quraysh daal di dem ak di doxee na ta di doxee ta ne ko moom lañ bëggoon a génnee yow yaa ko garanti woon mi ngi nii bëgg a yàq suñ dëkk bi di tuubal di dugal suñ diine seen diine ji di ci dugal suñ njaboot gi léegi nag waxal ak moom ni duxee na te ñëw ne ko emal fi ma la em loo woon wala nga dindi sama wala ma dindi sama garanti Aboubacar Siddiq ne ko garanti ak yàlla ak yonentam doy na ma bëgguma sa garanti bëgg a gàddaay yonent bi ne ko man maa ngi yow ñooy ànd gàddaay Aboubacar Siddiq kontaan ak kontaan Aysatu ne ne mësumaa gis mag bu kontaan bay jooy comme keroog ni Aboubacar Siddiq kontaanee ba loolu amee yonent bi nag salaay salaam fekk Aboubacar Siddiq yaroon na ñaari gawar yoo xam ne mu ngi doon waajal gàddaay ak yonent bi salaay salaam ne ko man préparé woon naa ay gawar bi ne ko yonent moom du gàddaay lu ci man dama koy jënd ñi may gàddaaye maa koy jënd ci sama ba loolu amee rek yonent bi ne ko ndigal jotagut ba bés rek Quraysh daal di dajee ci seen daara nadwa mooy ci seen assemblée yi nga xam ne moom la ñuy def ne dañuy pexeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ku nekk di wax ñu ne nañ ko dë dóor rëkk ko ay rëkk yóbbu ko ci benn dëkk di ko watat di ko rëkk di ko dóor ba mu dee ñu mucc ci moom ku wax rek ñu ne Iblis ne abu sàmmi sàmmi gàtt sax yàlla wut pexe mi rawatina kilifa guy pexe ku nekk di wax ba abu laab abu jaal daal di jël ne ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci bani Hachim nañ ko caw cawi jenn waay suñ ko cawee cenn cawe ni jenn waaye kenn du ci kenn du kenn du ci mën dara ndax bani haashim duñ mën lu dul ñu laaj dee suñ laajee dee ñu dajale suñu alal yëpp jox leen te mucc ci ay Muhammad loolu mu ne ko tigi yaamat kilifa pexe maa ngi noonu ñu di ko pexe rek alquran daal di ko wax ne ko is yamkuru bika alladina kafaru yusbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrujuuka wa yamkuru wa yamkuru llaahu wallaahu xayru maakiriin ñu lay jéem a pexeel di la jéem a rëkk di la jéem a caw caw ni jenn day jéem a pexe waaye yàlla mooy xam mooy pexe yi ba loolu amee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca guddi rek mu daal di jàng yaasin ci suuf ba ci yëpp sëru na tëfli leen ko sànni leen ko ñu nelaw ñoom ñëpp mu daal di war gawaram mook Abubakar Siddiq jaar ca xajjul ca xajjul ca lëndëm ga daal di génn Makka ñi nelaw nelaw nelaw ba naaj bi tiim leen ñu ne waa ji njabar nañu rek fu waa ji jaar ñu di ko wër xamul sax fan la yonent bi jaar yonent daal di dox moom Abubakar Siddiq ak gawaram ñu ne suraqatu ibnu malik Quraysh daal di ne ku indi yonent bi muy dund wala mu dee rek dana la jox téeméeri gëlëm Quraysh di ko wër fu nekk ñi ñiy war yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba suraqatu ibnu malik rek daal di moom seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Muhammad nga nee rek war ga waram xàcc ba ne dafay song yonent bi rek yonent bi ne ko suuf jàppal ma ko jàppal ma suraqatu suuf jàpp ko jàpp ko ba gawaram gi biiri gawaram gaa ngi tëdd ci suuf si mu ne mu ne wallaay suuf bàyyi ma soo ma bàyyee danaa dëpp yonentu bi ne suuf bàyyi ko suuf si bàyyi ko mu xàccaat rek beneen yoon rek yonentu ne suuf jàpp ko ba muy ñetti yoon mu ne waaye yonentu bi nag salaay salaam ne ko man day dama bëggoon a jàpp waaye nag léegi mënuma ci yow dara waaye nag xaaral ma dimbaleel ci sa gàddaay gi xam naa ne yow amoo dara daal di ko jox benn fett <clears throat> ne ko fett gii man foo ko wane rek ci gàddaay gi danañ la dimbale foo ko wane rek danañ la jox dara soo bëggee lekk wala boo bëggee meew wala boo boo loo bëgg rek soo ko wanee rek li nekk ci àll bi yëpp maa ko moom danañ la jox danañ la jox sa nga dimbali kooku ci gàddaa gi yonent bi ne ko waxal ashhadu laa ilaaha illallaah mu ne ko man du ma wax loolu yonent bi ne ko kon bëgguma sa ba loolu amee rek suraqatu daal di ñëw yonent bi ne ma suraqatu dalal loo xam ci bés boo xam ne sama saxaaba yi sama miskin yi nangu nañ góori Faris ak Room togal la ci lali buur bi solal la gàngunaayam gi mu bu keroogee lay wax suraxatu ne ko kisra hurmus ngay wax mu ne ko kisra hurmus mi ngi mel ni nga ne réew sénégal nangu na nguuri amérique ndax doole gi amérique amoon mu ne kisra ngay wax mu ne kisra lay wax keroog boo xamee ne sama saxaaba yi nangu nañ nguur ak faris loo xam ne loo xam ci buñ la tegee ci gàngunaayam gi solal la ndëppam bi su keroogee lay wax nekk li yonentu waxoon am sallallahu alayhi wa suraaxatu daal di dëpp nag fekk Quraysh ñëw dugg néegam rek tëdd waa Quraysh yi di ñëw ne ko yow mii dafa mel ni dafa mel ni da ngaa dab yoon yonent bi te gis nga ko mu ne leen man gisuma yonent bi ñu ne ko gis nga ko kay ndax yow sa leer gii nga am nii ci sa kanam gii amoo ko woon bi nga fi jógee ñoom sax li ñuy bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nañ ne yonent bi dafa leer ñu ne ko yow ba ngay génn ci màkka leere woon nii kon yow gis nga yonent bi ndax sa kanam gi ni mu leeree salaay salaam loolu yëpp xam nañ ko ci moom te taxul ñu gëm ko ba loolu amee rek yonent bi salaay salaam ba nga xamee ne mu ngi ca xuntuma ñoom Quraysh dañuy xàmmee tànk yi ñu ne bii tànk tànk ab yonent bi la bii tànk tànk Abubakar Siddiq la di def ba ca xuntuma ñu ne mu ci fekk pitax na fa jorga ñu lind fa ngarab sax fa yëpp ngir aar yonent yàlla Muhammad salaay salaam Abubakar Siddiq nag bi nga xamee ne mi ngi dugg ci fekk na xunt mi dafa am ay pax yu bëri fekk mi ngi tegle woon ak manto ñaari manto mu daal di jël benn bi dagg pax mu nekk rek mu sakk ko ak ak ba nga xamee ne benn pax rek moo ci des mu daal di teg tànkam mi nekkate ab jaana fa nekkoon jaan goo xam ne ñëwoon na di fuglu lu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ëpp junney at ngir ngir nekk dëkkaale ak yonent bi sallallahu alayhi ci buru xunt mi Abubakar Siddiq fatt ko ak tànkam jaan bi daal di ko matt fekk yonantu sonn na ba tëdd rek nelaw yëgul lu mooy rongañ ak aboubacar siddiq di tok ci kawam tàng mu ne aboubacar lan la aboubacar ne ko jaanama matt dari daal di ko raay rek jaan gi daal di lugg ba loolu amee rek yonantu bi sallallahu alayhi wasallam aboubacar ne ko Quraysh danañu gis ñu ne mu ci mi ne ah déedéet nekku fi xunt mi kay bu fi nekkoon konoon garab si du fi sax te jorgoñ bi li lind gii du fi nekk te garab si waxuma Muhammad waaye ba mu fii sax Abdou Moutalib sax juddoo ko waxuma la Muhammad ñu ne ko wax waxu leen dëgg waaye yàlla dëggal na seen wax ba loolu amee Aboubacar a ngi tiita tiita tiit yonent bi ne ko salaay salaam <coughs> ne ko Aboubacar Siddiq ne ko gis nga xoolal fële mu xool gis tali bu tàlli mu xool gis géej géej mu gis bato taxaw mu ne ko gis nga bu ñu bëggee lor rek ñu daal di dugg ci garab euh, bato bale rek dem ci beneen réew loolu yëpp ngir dalal xale yi Aboubacar Siddiq salaay salaam alquran wàcc na ci xontu ma nag لسانية اثنين اسمهما في الغار إذا قول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا ñaar ñi nga xam ne kenn kenn moo leen ñetteel moo yàlla mi nga xam ne moom yonentu moom ak sahabam aboubacar sidiq radiallahu anhu ba nga xamee ne loolu am na nag bani xulay si xaylata nag ñi nga xam ne ñooy leen saar bés bu set rek ñu enu indi seen i gawar war seen i war di teeru yonent bi sallallahu alayhi di ko di ko teeru bés bu set fukki fan suñ xëyee ba ngoon rek ñuy añ delluwaat di ko def ba muy fukkeeli fan yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar ci bargenaab umu maabat ne xanaa yéen du ngeen ganale gan ñu ne ko ñun de amuñ dara loolu gàtt bi moo fi ne boo xam ne dafa lompañ ba mënta wëtti mu ne leen mu ne leen indi leen gàtt bi ñu indi ko yonentu raay ko rek gàtt bi daal di suura suura suur mu daal di ne indi leen ma ndab yi nekk ci kër gi yëpp mu daal di duy ndab yëpp ba mu fees jox benn Abubakar Siddiq mu naan ñu jox benn Abdullah ibnu Urayqin dëgg je bi leen doon wan yooni Medina bi mu naan mu jox leen ñoom ñëpp ñu naan mu daal di naan moom ne saaxir xaw ma aaxirum surban di ko def ba nga xamee ne loolu am na nag mu daal di bani xayate ñu di ko teeru benn yow daal di yegg ci ak tàndarma gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ànd ànd ànd ak ñeenti gawar sol ay yére yu weex ak teglaay yu weex war ci seen i gërëm at baaw di ñëw ba ñëwee nag ñu ne leen seen gan gi nga xam ne moom ngeen doon teeru mi ngi ñëw ñoom ñëpp ñi génn nag di ko teeru di ko woyal di ko feccal di tëggal ñu naan talaal badru alayna min wadai wajab wajaba shukru alayna mataalaayi daayi ayyuhal mabuusu fiina jitabil amil mutaayi jita sharaftal madina marhaban yaa xayra daayi di ko woyal di ko fecci allahumma salli ala sayyidina muhammadin faati ومن خوال الخاتم سرك ناصرك وكون هادينا صراطك المستقيم على